Sotrac SIAS ak AMA Sénégal ba léegi ñu ngi laaj seen xaalis nguurub Sénégal ñu dajaloo ci benn cadre unitaire yooyu la retraité ñu ngi laaj alal bu tollu ci fukk ak ñetti milliards ci suñuy koppar. gis nañu ne Sotrac SIAS ak AMA Sénégal même ñi nga xam ni génn nañu àdduna yal na leen yàlla yërëm te yéexee ñu seen njaboot a ngi nii toog te kenn ku ci nekk lu mat fukki nit ñu ngi sa ginnaaw dama ni gouvernement bi nañu xool wax ak ñun. jox ñu li nga xam ne moom la ñu ameel ñu tàcc ko félicité ko sant leen ñaanal leen ndax ci ñoom la ko yàlla jaaxale monte xaalis boobu sóoraale woon nañ ko ci budget atum ren waaye ba fi mu tollu yooyu les agents mënaguñoo jot seenub xaalis. président de la république muy Macky Sall dañ koy sant di ko gërëm parce que moom moo joxe ordre pour ñu def loolu ci biir budget bi ay ministre am wëlbatikuwaat liñ koy tuddee tu ñun détournement d' objectif lañ koy tuddee parce que bu ñu nee lii nañ ko jëmale fii. ñu wote ko mu génn dem AGE ñu téye ko foofu wàcc ñu ci tali bi ñuy traîner di dee kenn par kenn loolu ñaaw na ci askan ñaaw na ci réew ci un état de droit. naam sax ci wàccaay feetu tabaski bi ñu weesu retraité yooyu jot nañu avance bu toll ci benn milliard suñuy koppar waaye ñoom nag li ñu bëgg moo ñu fay leen seen ak ak seen yelleef ba mu mat sëkk. pendant deux ans yoo xam ni mara détail li fi manqué ci ay doomu aadama ndax déception ndax yaakaar tas kenn xamul nu mu yàlla mi dara tawul moom bi mu fi nekkee ki la ñu amee lii ñu jot am akus néew kon nag moom na góorgóorlu di fekk président de la république ñu recevoir ñu jox ñu suñu onze milliards quatre cent jàmm ni ñooy ñu ëpp juróomi junniy agent bokk ci boobule collectif retraité yooyu nag fas yéene ñu bàyyi mbir mu sedd benn yoon ci loolu ajjuma bu jot dinañ amal ay rassemblement fii ak ñuy saafara seeni revendication